mu habitation bi sa à dire bu ñu amee moyen de transport yu gaaw yi nga xamee ni ku si nekk da nga dellu sa dëkk dem dëkk foofu sanc foofu noonu ngay jóge foofu di fajaru di ñëw di liggéey si. loolu mooy defar mooy mooy defar mooy defar kii bi. lii ngay wax nii tudd si te te problème yëpp. ñaareel mais parce que jamono bi moo toll foofu. waaw mais lu jamono bi non non du du sax par rapport mais jamono bi moo toll foofu. waaw c'est-à-dire am lu mu soxla. dafa am lu mu soxla cest à gis gis nga tey bu ñu amoon. <laughs> damaa nii. bu yeggoon par exemple Ziguin di dem ba Ziguinchor. Mm. di dem Saint-Louis. Mm. di dem Bakel. Mm. man tey lan laay def. am naa ay mbokk yu nekk Casamance. am naa ay mbokk yu nekk ngaay am naa ay mbokk yu nekk Gambie. damay dem foofu dëkkuwaay bi foofu moo gën a yaatu. gën a neex gën a gën a kii mais da dem dëkki foofu. waaw ñoo di buruxlu di fay ay mu ngi ci chemin de fer mi ngi ci doon wax euh, ni ki ni ki ni ki démb rek. ndax sàkku na ñu xool euh, fi nga xam ne. war na fa euh, mën a jaar. ñu defar ko plan andi tax day tax location bii gars yi di jooy fii ci ci kii bi ak encombrement bi dafay. dafay select Dakar dafay. mi ngoog Moustapha Mbaye at ci liñ fi jot a yëkkati léegi bokk na rek ci opposition bi di wax en quelques mots rek ñi nga xam ne ñoo noppi ku ci mel ni Idrissa Seck Euh, Amadou Ba dégguñu mu wax Khalifa Sall pare ñoom ñëpp ay candidat woon lañ ci élection yi waaye dégguñu ñoom ñuy wax ñay wax fi mu ne nii ñoom mooy ñi nga xam ne ñu woon euh, ci élection présidentielle yi sa gis-gis par rapport ak euh, parti gi nga xam ne ñoom moom la ñu nekkee. waaw xam nga ab koñ bu ñu organiser concert toujours booy yi nga xam ne amuñu maquette wala kii ñoo njëkk yéeg. bu ñu organiser concert koñ ni bu organiser concert. Hmm. boo yi nga xam ne amuñu maquette wala ñoom dañoo bëgg feeñ ñoom la ñuy def ci liste bu jiitu bi ñoo njëkk a yëg. ñooy tànqal waa koñ bi playback bi ñëpp ñëw. Hmm. mais fin bi nag si li ñuy woo kam mooy lead vocal bi ak ñi nga xamante ñoo waral concert ñu daal di génn mm. loolu la réew bi dund rôle fi ñu toll nii ñoom xam nañ ban période la ñuy génn parce que ñi nga lim ni yëpp Idriss Seck kenn du ko jàngal politique mm. Khalifa Sall kenn du ko jàngal bi mm. Barthélémy Dias kenn du ko jàngal politique xam nañ politique xam nañ timing xam nga politique timing daf ci bokk mm-hmm. lu nekk ak fa nga koy waxee ak na nga ko war a waxee waaw mais bu fekkente ne da nga foog ne affaire bi course de vitesse maanaam maa njëkk génn maa am initiative maa njëkk a def nii da ngay fausser sa jeu. Mhm. léegi nag ñoom période bi ñu tool nii dañuy juum parce que am na ñu bëri si ñoom dañu yoon bi Sonko jaaroon ba yéeg foofu laay jaar pour yéeg. Sonko yoon bi muy jaar pour yéeg bi muy gis nga Macky Sall boo yoon bi mu jaar ba yéeg. ak Sonko yoon bi mu jaar ba yéeg. ak keneen yoon bi muy jaar ba yéeg du doon benn mm-hmm. Abdoulaye Wade yoon bi mu jaar ba yéeg du benn. Mm-hmm. contexte aussi. bu nekk dafa am contexte merci. contexte bu nekk ak yoon bi muy jaar. Mm-hmm. ak anam bi ngay yéegee. Macky bi muy ñëw di yéeg dafam lu mu jaayoon. mooy dañ fi amoon ay leaders yoo xam ne dañ fi yàggoon ñu ne yi wane Ablaye Wade nekkoon ci Ablaye Wade ñu gis ñeneen ñi amoon nañ xam-xam certes mais ñun dañoo am arrogance bu nekk ci ñoom dañu am reewande dañu am nangam ak nekk assemblée nationale di ñi di ñi di mbéjaate gars yi mere leen yi ñëw wane parti bi ñu ne yi dafa yaru loo mënti wax da nga xam ne mag Macky dafa yaru waxam bëriwul nii ak nii ñu bëri jox ko bopp parce que waxam bëriwul ci yu ni mel ñu ànd ak moom mm-hmm. yaa ngi kooku ruse la utiliser ba dugg yéeg ñuy doog a xam kan mooy Macky Sall. mooy benn Abdoulaye Wade il s'est battu. dafa xeex pendant vingt six ans. Mhm. dem élection en 1974 la la teg parti am 78 mu dem élection ñu dóor ko 83 mu dem élection ñu dóor ko 88 mu dem ñu dóor ko 93 ñu dóor ko 2000 mu doog a gagné kooku dafa xeex yéeg échelle ba yéeg si. Mhm. Ousmane Sonko ñëw jàkkaarloo ak kooku tey ji Khalifa Sall masta ak moom. Mhm. ne noo wax ba jooy. Macky ne ko man xaw ma yii de daal di jël dugal ci kaso bi. seen Karim Wade na leen dugal ci kaso bi. Mhm. kii taxaw ne kii rapport de force la gëm ñu ne ko non da ngaa violent mu ne xam naa li ma leen wax. boo xeexul ak moom doo am li nga bëgg bu maslaa woon fi mu jaar ñëwee la koy jaar di koy récupérer dugal ko ci placard bi yeggali. mu ne foog nga xeex ak moom yëngal ko secoué ko mu tiit dellu ginnaaw. Mbaa moo indi ñu ne nitu fitna la. moo indi ñu ne nitu la te situation moo laajoon xeex parce que Macky Sall ku masta ak moom teg na la à côté bi mu indee xeex boobu nag tey ji moo ko may lii moom moo tax bii Barth doon wax na ani ñu doon gat sa gat sa booy na ko ñu ngi pale parce que boobu xamoon nañ ne. gis nga problème bu nag ak solution bi koy saafara. Mm-hmm. léegi ñii ñëw toog nii nag il faut ñu daw tuuti. ñoom ñu mën a xool seen modèle opposition naka lañ koy calquer ci régime bi ci yeneen données yoo xam ne mooy mën a indi riposte par rapport ak seen manquement beneen technique beneen technique beneen bi ànd ak ñoom mm-hmm. mais te loolu li la koy may mooy tey ji gis nga premier mandat mm-hmm. dafay jafe nga am ci opposition bu dëgër sax mm-hmm. li ma lay wax nii Macky Sall boo xoolee premier mandat ak nga bëgg ko nga bañ ko bi ñu demee assemblée nationale dóor yu si lañ dajal woon ba Manko taxaw Sénégal nga gis y avait les Idrissa Seck y avait les Malick Gakou mhm. euh, boobu à l'époque Khalifa Sall moom lañ defoon tête de te mu ngi woon prison mhm. te gars yi amuñu sax ju quinze députés si nationale bi amuñu ko dañ doon ñam liste nationale tuuti lañ ci am sept xaw huit yeneen ñu ñu ko ci département yi mhm. te liste boo xamante ni liste nationale bi y avait Idrissa Seck y ñoom Malick Gakou Khalifa Sall nekk tête de a wax foofu premier mandat bi pour nga am ci benn score wala nga pour nga am ci opposition bu dëgër benn dëgër bi. Mm, loolu exception lay doon. Mm-hmm. exception lay doon maintenant te deuxième mandat sax. boo demee ba bëgg a dugg sa neuvième dixième wala septième yooyu c'est mhm. li ñuy wax naan c'est l'usure du pouvoir di dugg su fekkente ne sàmmonte ak la nga waxoon ak ñoom mhm. mais soo ko sàmmonte sax da nga am chance pour continuer pour demaat ak demaat ak demaat mhm. loolu mooy waral nga dégg si yenn dëkk yi fii ñu naan un président def na fi douze ans treize ans quatorze ans ba tey ñu naan kan da war a toog kon tout dépend ci comportement wu ñu fi nekk am na nu ñuy juboo ak askan bi am na nu ñuy doxalee nga oppose boo opposé ñoom sax dañuy jàpp ne da nga leen tànqal mais am na nu ñuy doxalee nag ku opposé wul sax askan wi ñoo jóg dem jàppale ji leen te ñoom chance bi ñu am ñoom ñu toog nii chance bi ñu am mooy ñoom seen biir dafa mel ni diggante doom ak yaay ak doom. Hmm. xam nga yaay ak doom digganteem lan la. Hmm. yaay ji mën naa dóor doom ji waaye kenn du dóor doom ji. Hmm. est-ce que xam nga li ma la. yaay ji mën na corriger doom ji mën na koo saaga sax. day saaga doom ji waaye keneen bu jógee ci mbedd saaga doom mu defante ko ak ñoom patriote noonu lañ mel ak bi. moo tax ko yóbbu ñoom bu tànqal leen ci réseaux sociaux yi yenn lañ fu ñu waaye kenn du laal seen i leader xam nga kooku kooku tey ji ànd bokkul ak nga xam dafa ànd ak benn benn koo xamante ne tàggkatam la mhm. ñoom ñi nekk seen biir dañ leen di jàpp ay fans club mais duñ fans club de mhm. parce que boo gisee démb li xew ci réseaux sociaux yi nga xam loin de day club la bu ñu defee lu jàdd yoon ñoom seen biir ñoo njëkk dal seen kaw mhm. kon loolu c'est une chance Macky Sall amu ko woon doon wax muut mbaa mott ñii fi nekk nii Ousmane Sonko ñemul wax ay patriote muut mbaa mott ñemewu leen ko wax da ngeen di noppi wala ngeen ànd ak man ñemewu leen ko wax Macky Sall wax na ko fi waa coalition Benno Bokk Yaakaar. muut mhm. mbaa mott. donc c' pour vous dire que ne configuration yi du benn. Mhm. leader yi du ñu benn. parti du ñu benn. moo tax bu ñu doxalee ni ñu ko war a doxalee rek dinañ am chance pour gën a mën a am benn longévité au pouvoir. mi ngoog c' est mhm, mm. nga am na mm. l' époque. ca teel la leen Macky dégagé pour wax la li nga wax nii ne mhm. muut mbaa mottom bi li mu wax ci kaw nii mais ba ca suuf mhm. booy doon sonn ngir moom la njëkk a écarté mhm. njëkk a ñi suñ ko jàppale woon ci wàdd en plus gi nga ñii li ñu bénéficié wu mooy leadership dafa bokk ci mandarga gi koy samp nit ñi bëgg ko gis nga nit ñi ñi am nañ problème de waxuma la opposition ko mais dindi cofeelu nit ñi ci Sonko rek day diire pour nga dindi mbëggeelu Sonko suñu xol boobu du nga def fa dix ans de. kon affaire te mbëggeel bi nag. non loolu bu ñu ko kafee leader bu réussir ci monde bi. Mm. d' abord prophète lu tax xare bu daan am nga gis saaba yi xare ama ñuy gàttanu gars yi naan la ana yonent bi mbaa mu ngi ñibbisi ñaan ko mais sa papa demoon na ak sa frère mu ne non garaawul nañ dee. na yont bi ñëw rek. Mm-hmm. te te fooy booy booy foofu lañ toll Sonko. te Thierno Bocoum nag dafa juum. Mm-hmm. dafa yaakaar ne cofeel boobu cofeelu fan club la alors que non non ñu teg ko ci dëgg. delloo naa ko benn tontu sax bi Idriss Seck def ay bêtises politique am bokk mu nga foon. nekk fan su pire waaye way way Idriss yàgg na fi def jàggati boogum topp ko rek mais bi mu demee bégg na Idriss da koy tardel mm. la doog ko rocceeku ñun nag Sonko dañoo tardelagul mm-hmm. bu mu yëgoon ne da koy nax la rocceeku ñun nag Sonko naxaguñu. Mm-hmm. mi ngi ko internet yi nuyu leen bu baax playback bi nga wax nii daaj na leen. nuyu leen bu baax a baax ñoo ñu yokk doole Fatou Guirassy merci à toi ñu woy rek dem ci beneen ponk di sortie bi nga xam ne Ismaïla Madior Fall amal na ko mbokk yi euh, ci émission bi nga xam ne nag mooy bu Maïmouna Ndour Faye loolee nag soobee ñu yëkkati fa ay kaddu jëmale ci ñaari gendarme yi nga xam ne nag dañu jàppoon dañu réer ca mujjanteel rek lañu gis kenn ki Fulbert Samb ak Didier Badji waxtu wi nag moom lam ci yëkkati rek moom euh, Ismaïla Madior Fall nee na yooyee mbir daal dañu ko boole ci am amnistie bi ca noonee nag ca la ne ximmiliku ne c'est c'était de lapsus dafa juum. def ab tweet ma yokkal ko ci c'est un lapsus révélateur. <laughs> si suuf daal di avancé waa pour yéen yéen yéen yéen yéen kese yéenay choqué ci kii da tiit. day roqas quoi <laughs> day roqas. na ko xamoon de ah. ah, après ci la def tweet. Euh, di euh, wax li nga xam ne nag mooy nee na daal dafa juumoon du loo xam ne tayef la euh, làmmiñ bee ko bee ko trompé. Mm. ci ay